waaye kit yi dafa ñëw si heure am ndax fu mu nekk nii euh, Covid 19 bi la ñëpp di xeex population bi yëpp koy xeex euh, coronavirus euh, bu kit bi dafa ñëw ci heure am ndax nit ki boo ko nee toogal sa kër nga confiné ko war nga ko jox lu mu li ko li ko accompagner parce que warul toog ci këram rek di xoole war na dundal ay doomam war na dundal boppam war na dundal ay ay jegeñaaleem ñu ngi salié eh, tamit euh geste bi ndax xamné ne geste bi ñëw na ci heure eh, di eh, di salué geste bu baax euh ñi nga xamné nak ñoo joxé don bi don bu am importance ma sha allah li defe naa bi ñek ci association ba légui ñu ngi koy doga am pour handicapé femme handicapé moteur yi euh yalla ak wa action humanitaire ak la goutte vraiment ñu ngi leen di remercier bu baaxa baaxa baax bu paré accompagnant bi aussi dafa and ak enveloppe enveloppe bi nag xamaguñu lan moo nekk ci biir mais daal macha allah ñu sant yàlla bu baax a baax a baax. les femmes femmes femmes handicapées moteurs yi ñoom la ñu woon mais mënuñu woon jël ñëpp te 50 personnes nañ jël ñu jox leen ay dund. mais mënuñu woon jël ñëpp parce que wax dëgg yàlla nit ki moom bu lay demee ba di la jàppale lu mu la jox si ñaxam rek war nga koo remercier war nga koo war nga ko ci gërëm sant ko. waaw dina am njeexital euh, parce que fu te boo nit ki toogal sa kër war na am lu ma lu mu toogaale mooy li ma waxoon ci début bi rek am na dina am njeexital dinañu permettre aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi aussi dinañ mën a toog seen kër am lu ñu euh, euh, dundee ak seen ay njaboot.